alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëf Cheikh Mahmadul Fadil yi taxawaay mat na sëkk fa tabarakallah li ci dolli ay kàddu sax xam naa liggéey bi la bokk waaye dégg njàngum xutba bi rek doy na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 kon loolu day dellu si rek ci fonk sunu diine fonk suñu taalibe fonk suñu diine suñu kem kàttan mu def ko muy suñu yitte ji jiitu yitte yépp fonk suñu taalibe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 sax sax sa dàkk te yàlla rek tax nga di ko def loolu kon noor noonu loolu rek fi nekk nan góorgóorlu ci suñu diine fonk suñu diine nan góorgóorlu ci fonk suñu taalibe suñu kem kàttan di sant nag gannaaw bu sant suñu borom bi sant sëriñ bi minu fàggul suñu lépp xalal nu yoon wi xamal nu ko kon naa ba nu suñu borom mi nu boole sëriñ bi noo ngi sëriñ bi ci wàll yëpp ci lépp bi rek bi teegal lëg daja dolli ko nag di sotti rek mboolem mbokki jullit yi mboolem mbokki taalibe yi mboolem mbokk yi ñu ngi sant ñëpp xam na ni yitti ji yitti ji jenn rek la muy ni ñu taxawoo suñu diine rafetale ko taal bi xam na na ci lool rek lañ nekk nañ góorgóorlu bu baax ma ngi sant ñëpp ci rawatina jamono yi nu weesu ndax eh, xew-xew yi am na ci waaye fa tabaarakallaahu xam na ne lépp ci sunu borom la bàyyi koo sunu borom fowul yàqul juumul lu mu def na lu mu def ak defar la ndokk nag bañ ko xamee noonu ba dugg ci ak jàmm eh, sunu borom mboyefal ko di sant bu baax nag.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 gën a nekk ci loolu rek sax ca dàkk sunu kem kàttan teel rek tax ñu ko def ak njukkaliku Sëriñ Tuubaa eh, mu ngi leen koy liggéeyale jërë ngeen jëf